Même même si législatif yi je pense que responsabiliser par rapport à cette campagne et tout euh, au vu de cela yow nan nga évaluer and bi nga xamanteni le président Macky Sall ak le le ministère nous Lo ñu ngi koy ànd nan ngeen ko gisé and euh, interpellé ci suñu compagnonnage avec la coalition Benno Bokk Yaakaar nga commencé ko ci niveau local. Mhm. je pense que lolu man dama koy rafetlu personnellement. Mhm. parce que aussi. yaakaar naa ne uude na mu la gise rek noonu la ëwalee donc nit fu mu nekk dafa war a wane boppam war a fës xam ne lii man maa si nekk da dama si war a taxaw tànk yi ma ko taxawee bon pire nag yaakaar naa ni fàttewuñu APD ci dara te loolu li ma ko may mooy gis nañ benn manifestation boo xamante ni un grand meeting boo xamante ni man maa ko fa woote woon le président Thierno Lo ñëw kor kii ko assisté ko jiite ko mu nekk sama entrée politique respect bobu nak ak considération bobu suite donc à cette rencontre là dama fa wone nak fulla ak fayda ci li nga xamanteni mom lañu la ñu jëm ci coalition bi bu ci campagne bi nga xamanteni mom lañ doon def pour waajaloon législative yi loolu moo may cër bobu ma fa am comme vice coordonnateur de la section communale de Pire lolou moo ma fa may. ok ban taxaway la APD wara am ci élection présidentielle 2019 yi ñu jëm. waaw élection présidentielle yi man sama gis-gis moo doonoon li ma wax fii sànq mais nag par discipline de parti yaakaar naa ni nga fi wax sànq. pour waaw li ma fi li ma fi waxoon nii nekk ñu fa woon très bien Pape li ma waxoon sànq man sama gis-gis dama waxoon sànq ma ni gisatuma man suñu bopp APD ci biir coalition bi man sama gis-gis moo doon ñu génn. mais nag euh, bu ñu ko xoolee sànq nii euh, la majorité avait prôné à ce que compagnonnage bi ñu continuer ko. ah aussi ay explications yoo xamante ni moo waral ñu wax loolu parce que ñu ëpp si ñooñu dañu wax ni euh, moment bi c'est pas le moment judiciaire pour que APR di génn la coalition Benno Bokk Yaakaar te effectivement nit aussi mën na wax xelam mais bu dellu siwaatee wala mu déggaat ay intervention yu bëree bëri mën na xam ni lii peut-être waxoon na ko mais nag jàpp nañ ni aussi compagnonnage bi war na mën continuer kon taxawaay bi waa biir am gis-gis bi ngeen am mooy ànd ak le accompagner le président Macky Sall 2019. waaw du ma ni moom la waa PUR ama ah, parce que tamit man ci coalition bi laa nekk bu ma nee waa PUR damay jël parti APD ak yeneen parti yi nga xamante ni ñoo si coalition bi mais man li nga xamante ni moom la APD di liggéey PUR ma xam ko teg sama tànk ak interpellation yi ñu may def ñoom li ñu jàppoon mooy man su ma ñëwee fii su ma demee bu ma leen di defal compte rendu dama leen naan génn nañ coalition bi. ñoom loolu la ñu jàpp loolu la ñuy xaar ci man mais tel n'est pas le cas voilà donc ma jàpp ne kon léegi par discipline de parti ak aussi à l'image de notre leader parce que tamit nit doo ko jiital di ko fakastal te jox na fi ay raisons yoo xamante ni vraiment jar na ñu dem xoolaat suñu bopp ñun au niveau de Pire essayé waat ñun tamit euh, rassembler waat suñuy troupe wax leen li nga xamante ni dana leen mën a convaincre pour que ñu continuer compagnonnage bi ak euh, la coalition Benno Bokk Yaakaar accompagner éventuellement le président de la République euh, lors de l'échéance présidentielle de 2019. mais ce discours depuis sànq me damay que chaque fois nga raison yi yi président Thierno y a une raison là. non c'est-à-dire euh, ne ci pas président Thierno Lo mais président ma dégg mu il ko wax donc. Euh, moment bi ñu contexte bi ñu nekk nii. voilà pour téléspectateurs je sais mais contexte bi ñu nekk avec ak moment bi nga nous sommes juste à 12 mois jour pour jour de l'échéance présidentielle le benn moment pour maintenir un leader national et même international comme lui comme M. Thierno Lo warul mën n'est rek à la tête d'une formation politique xëy à un an de l'échéance présidentielle mu le d'abord contexte bi ñu jëm dafa dafa nekk contexte boo beaucoup ni boo que a évaluer day dans les 12 mois pratiquement six mois yi nga six mois et puis du dañuy nekk ci activité parce que il y a le ramadan il y a les fêtes religieuses il y a les magal et tout ci contexte boobu période les acteurs politiques ne sont talal nekk sur le terrain pour débattre campagne loolu aussi c'est un contexte boo xamante ni dafa jar pour dire que daanaka sur les 12 mois 6 mois yi rek la am temps yoo adresser ni dinañ population sur le plan politique waxtaan ak ñoom loolu moo tax vraiment ma gis ni compagnonnage bi war na mën a continuer. jërëjëf Abdou Dieng.